favori bi kan la roi des arènes muy bëre kan Ama mu nekk combat boo xamante ne nii combat bu àddina laa wax de àddina di di suivre la di ñaan yàlla rek yàlla na combat bi yegg ak jàmm salaam que le meilleur gagne. daal yow su la déggee dafa mel ni da nga ne Modou moom mooy favori bi. waaw si yoon par moo war a nekk favori parce que moo giit moo giit Ama Baldé si làmba mooy roi des arènes xam nga. te mooy jóge nekk ndaw dem war a fekk ji war a bëree roi des arènes kon bu ñuy jox foofu dañ koy jox Modou ñu gis ni lu yàggul dara ci seen signature mu mel ni Ama Baldé dafa xeeb Modou ndax ñu ngi ko dégg ci waxam mu ne su ko teeloon gis du ko jaral mu def ci moom 1000 francs yow tey loolu en tant que mbër loo gisee loolu. waa li ma gisee loolu mooy tey say ji pour bëgg rek xam nga kële yaakaar ne Ama Baldé talu ko mais Ama jigéen ñu sax fu muy xewee Modou Lo jigéen ñu sax fu mu kay sàgganee mais combat bi nekk na combat boo xamante ne si moom combat bu mu gën a respecté si àddina moo nekk nii bi mu gën a respecté si àddina moo nekk nii. kon daal su ma la déggee dafa mel ni Ama day dalal xelu ay supporteram. non du question dalal ay xelam xelu supporteram sax parce que moom nga mbër di nga dajeex moom wax loo xamante ne tey say ji xam nga du la sax jéem a bàyyi xel wala jéem la. mu yaakaar ne man damay ñàkkal fulla combat yi fekk ñàkkaloo ko fulla mais Ama ñàkkalul fulla combat bi de. Mhm. tant que mbër tey boo doon maytuloo lan nga koy maytuloo ci combat bi. waaw Ama li ma koy maytuloo si combat bi mooy lan mu nekk loo xamante ne nii combat bi mu bañee ñëw ne kur ko kur rek damay jeexal combat bi léegi nii man dama bëgg moom moom mu nekk loo xamante ne day liir kombaa bi mu liir combat bi. Mhm. léegi ñu gis Modou mu mel ni Modou Lo moom tamit Pikine ku ne xam na ni. ci la jële roi bi. mu war a bëreeg rakku mu war a bëreeg mu ñu war a ñëw dajawaat ak koo xam ne Pikine la nekkoon muy Ama Balde léegi yow tey Modou boo ko doon wax ci làmb ji nga ko mooy kon ni ma la ko waxee rek Modou boo xoolee roi bi jël na ko de jël na ko si Eumeu Sène mais moom mu tamit Modou Lo bi mu gën a soxlaa si àddinaam mooy combat am wax Ama Balde parce que dégg na si lu ne dégg na si lu ne gis na si lu ne. kon day dafa da day day nekk loo xamante nii tey say ji combat bi combat boo xamante ñaari mbër yi ñoom ku si nekk dafa dafa xiif moroomam daal dafa xiif moroom moo loolu gëm naa ne combat bi du combat bu muy sàggane Ama Baldé du combat muy sàggane mais damay ñaan rek képp koo xamante ni faral nga Modou nga ñëwee esaat si dal jàmm képp koo xamante ni faral nga Ama Baldé nga ñëw esaat si dal jàmm combat bi ñu mën ko bëri ñu xool ñaari mbër yi kan moo man kon nag bu ko defee dañuy naan mën nañ ne waa Pikine làmb ji dañ cee am confiance de trop mm-hmm. ñu gis boobu ba tey ñoom ngay dégg ñooy wax am yow tey lan nga gisee lool. waaw mooy yoon parce que Pikine boo xoolee wàllu làmb ñoom ambiance ambiance moom dañ ko dañ ko moom parce que seen mbër bu génne di bëre ji ñoom dañ ko neenal si dara dañ koy topp ba mu jeex muy mu daanu muy mu daan kon ambiance boobu dafa yàgg si ñoom ñoom dañuy jàppale mbër. te li ñuy def noonu mooy yoon mooy mooy taal mbër mooy taal mbër te képp koo xamante ne yaa ngi bëre bëgg nga kon waa Pikine ni ñi doxalee nii nga doxalee ko waaw. Ah, léegi est-ce que loolu baax na ci ñoom ni ñu xeebee Modou Lo nii mu mel ni ñoom dañu xeeb Modou Lo ba koo ci dékk micro sax daf lay wax roi bi dama koy jël par force. dama ko moom xeebuñu ko. xam nga la moo mën a xeebuñu ko Modou waa parcelle bi ñuy bëree kii nu mu tuuti bi ñuy bëree Eumeu Sène waa parcelle doon wax naan. droit bi dama koy jëli ji par force kon ñoom li ñuy def nii am na si droit parce que jotaguñ si parce que gëm-gëm lañ war a am pour di wax na damay damay jëli ji droit bi kon ni ko Modou amee woon. est bi nag Modou moo ko yor il foog moom mu nangu ne ñii li ñu war a wax nii dañ koy wax waaw. tey bu ñu la doon laaj si diggante Siteu ak la de Guiers. waaw Siteu ak Lac de loolu combat bu neex la combat bu neex la yaakaar naa diggante mag la ak rakk kon ni ko gars yi di waxee rek la garab si kaw lay fekkante waaw garab si kaw lay fekkante mu nekk combat boo xamante ne nii komba bu neex la la dëgër dëgg moom buy bëre day taxaw mais yaakaar naa tey say ji ni ma gisee signature bi gëm naa ne gëm naa ne combat bi moom du taxaw gëm naa ne dina dem jëli ji booy bi ba lu ko yàlla may mu jël. ñu gis ni Siteu signature bi toujours rek li muy fàttal la dëgër mooy daf koy ñaan nga taxaw. Mm-hmm. nga taxaw nga taxaw yow ñu gis sital noonu mu la yabee la dëgër noonu yow loolu noo ko gisee. loolu yoon la parce que nee naa la deretu xale ak deretu mag bokkul deretu xale ak deretu mag bokkul parce que Siteu xale la gëm na boppam na gëm na ne man mën naa war naa mën a daan la dëgër moom gëm na ko bu baax a baax a baax a baax te mën na kaa daan sax. Mm, foo teg lool. si wàllu bëre man qualité yi ma gis si wàllu bëre. man la dëggee ñu mu bëreel ñëpp da leen plaqué te Siteu lu bon bon mu ngi xar ah mu ngi plaqué mu ngi def lu ne si wàllu bëre. mais boo xoolee favori bi la dëggee la ndax nee nañ bu dee doole moo ko ëpp Siteu bu dee bëre tamit nee nañ moo ko ëpp yow loo jàngee. est-ce que xam nga ne gars yi dinañ jowaale poids ak doole ñu gis Ronaldo nii mu nganda nii taxaw ñu yaakaar ne am na doole fekk amul doole. kon bu ma la déggee yow da nga bëgg a wax ni la degee ëpp doole Siteu. non ëppul doole Siteu ëpp ko doole de ko gën a man nangu naa ne moo ko gën a volume. yow loolu daal nga jàpp moo. loolu laa nangu man man mooy loolu moom li ma la wax nii moom dama koy dama ko gis dama ko xam. la de dafa taxaw moom tamit ne bu bu taxawee dina taxaw. te nee na a ngay gis est-ce que yëpp ay ñaar deux lay gis ñoom mu ñu ngi di ko mu di ñu bëgg a rey. gis entraînement Lac de Guiers. te moom entraîné wul de Lac de Guiers ay entraînement am du ko wane de. parce que ñoom jot googu ñoo ni kii nii ñuy def loo booy noonu duñ ko def de booy lañ koy defloo rek. mais làmba ji noonu gars yi kenn mënatunoo ndax xam nañ lépp. yow daal su ma la déggee da ne yow favori bi Siteu nga ko jox. maa ngi Siteu man Siteu laa faral man lébu laa damay sob est-ce que nekkul ne far ngay waxee tamit. non du far sax. tey bu ñu ko tegoon ci cadre làmb Lac de Guiers ak Siteu bu ñu ko tegoon ci cadre làmb. Lac de Guiers ak Siteu bu ñu ko tegoon ci cadre làmb. boo xoolee mën nañ ni la de dafa may chance Siteu. parce que Lac de dafa may chance Siteu bu baax baax a baax. kon yaakaar nga ni la déggee dina bàyyi Siteu ñëw daan ko noonu noonu noonu. du yomb du yomb day saf xat. kon combat la am na combat. Siteu am na combat bu rëy combat bu rëy la am la déggee boo xoolee am seen moo ko jàpp dëj ko fi amul beneen mbër moo xamante ne tamit tëral na ko. la déggee nekk mbër bu nakaree bëreel. tey boo doon indi Siteu boo boo ko doon jox combat bi yow Siteu nan nga koy conseillé. Siteu daal tey say ji kon la dëgër moom mooy mag mi moom mooy mag mi. mais Siteu mooy xale. Siteu mooy xale waaw man nag dama ne man Siteu day dox si kawam nu xool ba xam dëggam la dëgër. est-ce que Siteu ñeme na. dem est-ce que Siteu buñ ko tëjalee barrière yi bàyyi ko ci géew bi moom kese ñeme na dem fekk ji la dëgër. noo man nag dama lay wax leen de Siteu bu fekkente ne moom bu fekkente ne moom laa wax de dem na ba taxaw dugg si biir géew di ragal man moom dootuma dootuma dootuma wax ay waxam. la dëgër neexul ñeme de. Lac de Guiers guy la de. non ndaanaan la Lac ndaanaan la man gëm naa ne ndaanaan la ko mais boo bëggee dégg-dëgg rek daje naa saab booy saab. boo doon conseil Siteu noonu nga koy conseil ci Siteu li ma koy conseil mooy mu xam ne champion lay bëreel champion lay bëreel ndaanaan lay bëreel mu teelu combat bi te gëm naa ne bu jaxasoo moom jàppanteex moom Siteu day am dara. Hmm, Ronaldo est-ce que far. baax na. Ah, mbokk yi ko déggandoo. ñu seet si woon ndaanaan Ronaldo mu waxtaan ak moom ci diggante Modou ak Ama Baldé waaye waxtaan nañu ak moom tamit ci diggante Siteu ak la de Guiers yi ñu ngi leen di kontaanee bu baax yéen ñuy suivre à travers Yeumbeul Vision TV di nuyu général waaye di nuyu Saliya di kontaan di am mbégte bu baax a baax.